ay expert yu bàyyeekoo fu ne ci l'Europe Afrique ñoo daal di teew ngir waxtaanee migration di xam xamle ne ñiy jiite réewu Afrique yi dañoo war a xoolaat ni ñuy doxalee. gouvernement yi dañoo war a gën a xool lan mooy migration bi bañ a seet rek li nga xam ne moom la leen partenaire bi di wax partenaire bi lan mooy problème migration irrégulière mais du loolu rek mooy problème bi problème bi mooy tey am na ay liggéey yoo xam ne am na Afrique. ay ñoom di jël ci seen budget di ci dugal ci wàllu migration bi. mu dellu si di woote ñiy jiite réew mi daal leen boole ci li koy doxal. ay africain lañu booleeg ñi nekk ci diaspora bi kii ma nga Pays-Bas kii ma nga Slovénie ak ñeneen. ñu ne tey am nañu xam-xam bi ci wàllu migration bi nañ ñu ci boole ñu dimbali état bi di conseil état yi di leen wax ne leen mootu leen di def leen di def leen nii wutuñ ci dara dul loolu. rawatina ci wàllu collectivité territoriale foo xamante ne am nañ ci ay gis-gis yu yaar nga utiliser ko ci collectivité territoriale yi xoolal tey bu fekkonte ne tey jii def nañu formation yi ci war mairie yi ak département yi ci suñu réew yi. li ñu mën a jariñ ci bitim réew tey ñun am nañu xam-xam boo xam ne tey xam nga tàmbali nañ koon am na ñoo xam ne keroog fekk nañ ñu nekk ci yenn région yi mais mën nañu indi tey suñu contribution pour que municipalité yi département yi mën a mën a jariñu ci migration lu toll fukk ak ñett webinaire la ñu daal di amal laata ndaje bi di am ngir état africain yi bàyyi xel bu baax migration lu mu mën a jural ci réewu africain yi ci ay ngëneel